la sant di nuyu waa plateau bi yëpp fàttewuma kenn di ñaanal euh, Bougane Gueye Dany ndax ñëpp xam na ne saa su ma xëyee ci moom lay jawal si li ma yóbbu sama kër ci moom laa koy jëlee moo tax ma di ko ñaanal sunu borom guddal aw fanam wéral ay cëram yokk ak mënam tingoom ko ba ñëpp seen ko te dara bañ koo yàq ci barke sëñ Touba Cheikh Ahmadou Khadim defal ko réew mi yëpp di ko ñaanal sama sang bu tedd ba Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu sëñ Abdoulahi borom dër bi rakki Serigne Cheikh Mbacke di le lion de Dar Rahman yàlla na yàlla guddal fanam ci barke borom Touba di nuyu waa Touba yëpp waa Darou Rahman fàttewuma Abdou Kandji le grand entrepreneur de Serigne Cheikh Darou Rahman fàttewuma kenn ba fàttewuma ñoom uh, Maya fàttewuma tamit uh, ki nga xam ne moom mooy Tafa Kandji ba Tafa Kandji moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax le grand promoteur di ko nuyu Kébé Kandji seen yaay Ami Sakho fàttewuma kenn ñoom Fatou Mbacke jigal ma kenn ñoom Daba Kandji maa ngi leen nuyu bu baax leen gërëm leen sant Sofia euh, ba sama xarit sama lépp sama doom di kii nga xam ne moom mooy euh, Ma Ibra Diagne moom la ma bàyyam da bërki démb ne ma ah, dafa am mbokkam mu génn àddina ca Gosaas ma laaj Matar jaañ mi nga xam ne ñoo dëkk caari yu te nga xam ne seen mbokk la nga xam ne Baye Amar Diagne moom mooy juram mi nga xam ne moo gor daaree amar ëlbatiku daal di taxaw daal di may ne seen menn mbokk la mu nekkoon fii ci maire Pikine bi effectivement wax na dëgg muy Modou Touré moom moo génn àdduna dëkkoon ca Gossas nag nga ma di ko jaale El Hadj Mbaye Touré ndax ab gorooma ndax maa soxnaa ma di ko jaare kala kala doomi El Hadj la di ko jaale faat jaañ bu maa Ibra Diagne fàttewuma kenn ñoom mataar Diagne bu Caaroy Géej ba fàttewuma leen maa ngi leen di nuyu baax borom daare amar waa mesere waa saate di ko jaale daawuda di ko jaale kii ba ndey Touré moom it fàttewuma ko ñoom ñëpp ñu sant Touré maa ngi leen koy jaale di ñaan suuf oyof ci kawam ci barke Sëñ Touba Cheikh Amadou Khadim di ko jaale ñoom Baye Mbaye jaañ nekk depuis kawlax ñoom Baye Cheikh Diagne fàttewuma kenn yàlla na suuf oyof ci kawam ci barke Sëñ Touba ñëpp ne nañ Sofia fi mu ne seenum xel dal na ndax kontaan nañu ndax ku ne xam na ne audimat bi mu nga ëppee ca kaw Europe ba tax na tey am na ñuy woote ñu bari ñoo xam ne ci kanam tuuti ku ci demee ni ki ki nga xam ne mooy as sill dëkk njekki naan sill ak jëlleelu sil waaye nekk ca Paris doon koo yàkkamti woon lool waxtu wi jot nga xam ne fi mu ne doonoo am largement le temps ñoom ñëpp ñu ngi taxaw di xaar gis-gis waa Ngën Saar waa Ngàjj Saar waa Guyaar waa Màkka Baraga yi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant bu baax di nuyu nag jama ndax mënumaa dugg njàmbur daal di fàtte ki nga xam ne moom mooy Jama Diop la grande restauratrice nekk nag depuis poste Thiaroye yi moom tam maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ndax jama soo ko tuddee da ngay tudd kër Modou Fall waaye tamit da ngay tudd kër Mbogal ndax ay maamam kër Modou Fall nañ jóge woon daal di wàcc la kër kii daal wàcc boggal kon maa ngi koy gërëm baax di ko nuyu bu baax di nuyu ñoom Mamadou njaay bu Sénélec kooku ni jaayi muut loola borom énergie waa tey ba njaay la May Diop mooy soxnaam moom mu nga dëkk Ndóomóor mhm. ak ku ñuy wax Ndey Ndaak Ndey Ndaak daf may tip top xaaj na kay ba xaaj na ndax ñii xam nga tamit waaw waaw waaw di nuyu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moomu ah ba kenn la koo xam ne wax dëgg yàlla dafa dëkk Ngën Saar maa ngi koy nuyu baax di ko gërëm di ko sant ndax soo demee ngeen Saar dem Touba di nga xam kan mooy seen mbay saar bu Sénégal Tour di nuyu tamit monsieur le maire Moustapha seen bu Chérif Lo et ses Amazones madame Sarr Ndeye Awa Guèye fàttewu ma leen ñoom xaadim Samb depuis Thiès nga xam ne promoteur immobilier bu mag la maître Fall maa ngi koy nuyu ma nga ca tribunalu cees ba di nuyu Abdou Fall nekk ci mairie bi fii ci ginnaaw raay fii mairie bi jëm Caaroy Gaar nga xam ne spécial en disque et plateau moom la yore moom lay def baax maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen gërëm leen sant di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal waa réew mi yëpp fàttewuma kenn mbay si laa la textile soña ñoom Birane Ndiaye waa Caaroy Géej fàttewuma kenn ci Caaroy Géej maa ngi leen nuyu bu baax Mor maa ngi koy nuyu bu baax le grand mécanicien maa ngi leen nuyu di leen ñaanal jàmm di leen wax ne bu leen am dara lu ngeen tiit ci man ndaxte vidéo yi daw gis ngeen ko laaluma ca laalewuma ca dara ñu jikki-jikki rek di ma woo ay téléphone ay commissaire ak inspecteur dégg nga ndax yow yaay Mbaye Ngoné waaw man maay Mbaye Ngoné vidéo bi nga def diw lekk na ci ñetti millions yi jàmbur ca Italie lekk na ci juróom ñetti millions yi jàmbur ca xaw ma kii dëkk bi nu mu kii ba Canada. Ah, non non kii ñi mu lekk ngi nu wax ne lekk nañu ci seen million millions kii. ma nga Canada day ci benn sa kanam la. waaw ah, kay ndax bëgguma tudd tur li sama sëriñ sëñ Modou Abib Mbacke di wax naan. yàlla bari na sutura sutura sos rek laay demee. waaye fii la ñëw ci sa kanam ne diw mooy sama mag. <laughs> ñoo bokk ndey a baay <laughs> ma jël ko maa la ko présenté. waaw ndax moo ñëw fii moom moo ñëw fii daal di mel ne dama bëgg. man daal allo la ma wax waaye nag woowu ma ni commissaire bi woowu ma ci numéro bi. lu ma la waxoon naa du ma yóbbu añ. man kay nga tontu la. vidéo moom jeex na moom. vidéo ay <laughs> site internet yooyu. dimbali leen ma ba ci kanam ndax kii nga xam ne jël na ay millions nga jàmbur te ñoom nee nañu man la mbubboo ndax man la gis ma defal ko vidéo boo xam ne dama koo tàllal loxo mu di ma ñaanal moo ma ne ab sëriñ la di ànd sama doomi sëriñ moo ñëw fii ma won ko Sofia Diatta mu ne ma ab sëriñ la diw mooy sama mag loolu la max ñoo bokk ndey ak baay. léegi lan laa tontu lu ma waay naxee sëñ baa ma gëm ko. léegi lan laa la tontu. ah danga ma ne teeyal waaye man loolu ma mun kii non munoo munoo ma ne. du ma man su ma la waxee teeyal ci lii nga bañ nee la boñ lay yóbbu man du ànd ak yow te du ma yóbbu añ nga lan. man munoo ma kii kii munoo ñëw ne ma du ma jóg sunnatu rasul duma ma jóg ci sëñ moodu dégg nga. nga di ma wax ak man ma di la fëlati wala duma ma la tontu <laughs> yàlla xam na ak ñi xam ñi xam ni mbir yi demee yëpp xam ne bi ñëwee ci sëñ Modou Habib Mbacké la ma naxee ci sëñ Modou la ma naxee ne ma du ma jóg sunna turo suul maag diw ñoo bokk benn bàyyi waaw d'accord yow kenn du la def dara ma vidéo kenn ma defal ko vidéo ma toog ñu ne ma Thiès am na koo xam ne lekk na fa ñaari million am doomu sëriñ bu mag ma toog tuuti am ku ma woo ci Italie ak numéro Italie ne ma maa ngi nii yow yaay diw ma ne waaw mu ne ma sa vidéo bi ma ne ah mu ma nee na moom moo lay ñaanal ma ne ko man ñaanalu ma sëñ Modou Habib moo may ñaanal sëñ Modou Habib Mbacke moo may ñaanal ñaanalu ma de nee na moom moo la def nii ma ne ko nan mu ne nii nga mel ma ne ko nu ma mel lu dul taalibe man melu ma nen man ab taalibe rek laa melu ma nen million daal bu méttee métti di nga ko fay bon bonsoir Marina kontaan nañu ci recevoir la ci plateau bi ma fait un petit coucou ah Sophie Gueye aujourd'hui elle n'est pas avec nous parce que dafa dem euh, Tambacounda daal di joxe ji ay. Euh, ay bagages ci xale yi nga ah, xam ne nii foofu c'est vrai que ñu ngi préparé Noël donc on te fait un se retrouve incha allah dimanche ak yow Marina bonsoir. bonsoir Sophia. noo def. maa ngi fi maa ngi sant maa ngi si jàmm bu maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur Sen TV di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi koy kàl ci internet bi. waa YouTube ak waa Facebook sama gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Père Prosper Maya maman cha di leen nuyu ñëpp di leen ziar père nag temps yi dañ laa bàyyi ak sa sago ngay def loola neex ci télé bi mhm. waaye tey dootoo ko dolati tey la caabi bi di tëju waaw mhm. kay ci kanam bonsoir madame Diallo comment vas-tu alhamdulilah super santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam internet yi neen da ngaa sañse moo tax yaa ngi yokk ca tiitar da nga bëri tiitar yokk rek madame Diallo bëri nga tiitar madame Diallo joolaa waaw c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que ku iñaanul wax ko ah, ah? Ah, di santaat yàlla santaat yàlla bu baax ah alhamdulilah rabbil alamin waaw say gi nga sa yaay nee na tu es sublime pour ne pas dire belle waaw Mouhamed moo alamin mhm. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa santaat yàlla julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ñi ma bokkal plateau bi ah, sama jigéen ñi vraiment gëj naa bokk ak ñoom plateau mhm. namoon naa leen di nuyu ñi ñuy seetaan fii Sénégal ak bitim réew ak ñi di ñu encouragé di ñu jubbanti mhm. n'est-ce di ñu xelal mhm. ah, toujours n'est-ce pas di leen di ñaan di profito nag parce que c'est euh, c'est la dernière émission avant Noël di ko souhaiter vraiment sunu mbokk yi nekk Sénégal yëpp wallaay joyeux Noël ah sunu mbokku catholique yi di leen ko souhaité n'est-ce pas ak euh, ñun jullit yi nga xam ne aussi ñu ngi ciy buuxanteeg ñoom n'est-ce pas Sénégal moo bindoo noonu di ñaan yàlla fekke ko ay déwén yu bëree bëree bëree bëri te bu ñëw dàq moromam te bañ a bañ bañ bañ a melati 2020 ak corona yàlla baax na vraiment 31 décembre daal yàlla bu mu fi bàyyi corona ñu dugg ci ñu dugg ci 2021 bu alhamdulilah rabbi alamin tey ñaan na profité aussi di ñaan gouvernement bi fu ñu toll ci vaccin yi man dégg naa réew yëpp di wax wax vaccin waaye ñun suñu réew ba léegi dégguma waxi vaccin nañu ci jàppale moo gën. yàlla baax na mesure barrière baax na waaye vaccin dara gënu ko ci. bonsoir Maya. bonsoir Sophia comment vas-tu maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm sa sang sa rafet na de. merci internet yaa ngi yaa ngi yaa ngi apprécié bu baax. comme ñun donc maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp di nuyu Père. di nuyu Prosper sama maman Aïcha ak Marina ak euh, képp ku ñuy seetaan ci Sen TV ak surtout internautes yi dañuy participer bu baax a baax donc di profiter ci occasion bi pour souhaiter un joyeux anniversaire à maman Kiné Dieng ak aussi Momo Gueye chérie Mariama donc dund leen ba doyal donc voilà merci beaucoup. kontaan nañu bu baax ci recevoir ko encore une fois suñu ça va tu vas bien. maa la gën a namm maa ngi la gën a namm maa ngi kontaan trop ci invitation bi bu nu sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sang-sang yi di nuyu waa kër Serigne Touba ak maam Cheikh Rafal di ziar sama wasila Cheikh Roqay Fall borom digal euh, maa ngi nuyu sama fan si yëpp ndax fu ma génn surtout maire yi marché bu ma dugg lu tax gis-gis bi doo doo ci ñëw yaag peen may ngóone yéen a tax ma koy seetaan. am ma am sama doom boo xam ne mi ngi ba sinti nanti ñu koy wax Fatou Kine Ndiaye euh, ak xaritam mu nuy wax Joli Koyta vraiment sànq bi nu may wax affaire gis-gis dan ma koy wax rek ma ne leen ah tey de Sofia daf ma invité tey di nuyu nag sama doom muy Sayer Faye sama xarit Pelli Diop ak jabaram Binta Binta Sall Sofia rakkam sa xarit la woon tey jii moom a génne fii ci wax dëgg yàlla taay maam bi mm-hmm. ma ne ko dan maa invité mu wékki ko ci atelier am jox ma émeraude euh, culture maa ngi leen di gërëm bu baax vraiment mi ñëw génn ak man fii ci maquillage bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu samay fans nag ci théâtre bi di nuyu waa dina ma neex waa Adja di nuyu ñëpp ci senegal maa ngi leen di nuyu di nuyu nag Daba Sambake ki ma dëkkal duma ko fàtte mukk ci àdduna di souhaiter joyeux Noël sama mbokku catholique yi famille Nunez bi famille Mendez ñoom bébito booy maa ngi leen di souhaiter euh, joyeux Noël ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah mbas mi dal ci sunu Covid yàlla na ko fi yàlla gaaw teggi ci barke Serigne Touba maam Cheikh Rafal ci barke Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla teggi deux mille vingt bi dàq deux mille vingt bi vraiment sonn nan. yàlla baax na nan trop. Euh, di nuyu bu baax suñu yaay Euh, Yaboui, maman, on te souhaite un joyeux Noël par anticipation. Hein? On t'adore, on t'embrasse très très fort. Merci de nous suivre. Aïcha Papa tey fan la ñuy dugg. waaw doonuy sof doonuy def raccordement doonuy sof rek doonuy dolli duñ ko dagg ndax thème boobu du mën a jeex mukk dégg naa ci nag lu nekk gis ngeen kooku sant Cissé daw attaqué ma te nanguwut wax fa mu dëkk ndax laaj naa ko nee naa ko su fekkente ne da ngaa dëkk wanaar wala nga dëkk maabo wala nga dëkk Ségéré walla nga dëkk fu mu mën a doon ci Saalum wala nga dëkk Pakala wax ma nu waxtaan waaye soo duggee làqatu waxoo foo dëkk ngir ma mën laa tontu la ma lay tontu ndax su ma xamee fa nga dëkk dinaa la mën a tontu lu baree bari selon fa nga dëkk le milieu détermine la personne mm-hmm. l'homme n'enseigne et ne professe que ce qu'il est sunu ëlbatikoo dugg fii ma taxawoon ñu ne mariage au Sénégal maanaam ab sëy fii ci réew mi moom nañu wax ñu ne quand la dot se marchande suñu demee dema dem ba léegi ñu ne ci may gu jëkk ndax can moom can la rek fukki million ak juróom soo ko joxe woon du tere can nga moom suñu eggee lii mooy can gi noonu la tudd moom mooy can gi waaye ñu ne dugal nañ ci fukki million yéen ñëpp yéene naa leen ko yàlla na ngeen ko am ci barke borom Tuubaa yàlla na ngeen tase ak ku leen ko jox ku leen ko yéene laa wala nu dem ba ne may na ko juróom benn million wala ne may na ko ti million waaw man de la ma cax du leen naan dama ne ah waaw waaw yéene naa leen ko yàlla na ngeen ko am yàlla na ngeen tase ak góor gu leen ko jox waaye de mu ne ah ma ne ko na ngeen ca nangoo toog. li ma gis mu néew lool lool lool ak can te nu dem ba bàmmeel tàggale leen moo ëpp li ma gis ay can yu ëpp lool te mu dem a dem ba bàmmeel tàggale leen loolu sañ naa ko li ma gis ci can yu néew mu dem a dem a dem ba seeni doom ñu leen di raamu di leen topp ñu am baat bala noo def xaar leen bala noo dem tàggu leen mbooloo mënu dugg suñu waxee nu déglu leen moo ëpp li ma gis foofu ci ay can yoo xam ne fortune la doon ba pare sunu boroom jox leen ay baat jox leen daraja jox leen lu leen bëgg walla lu leen neex walla lu nu war a def def ko ah daan na jafe de ndax nee nañu képp koo xam ne ëmb na sa sànqal ci boppam wala képp koo xam ne mëq nga suukar ci ab sëy noo mën a def allah kulli aal sa doom dina lekk kaani ga moo xam nga jiital sa borom kër walla nga yor baat ci kër gi walla bala ngay def ci boppam lu la neex ngay dogal wala su sa borom kër defee ba pare nga dindi kooku moog doom juy duma way juróom ñoom ñoo yem mm-hmm. sa doom du am baat fenn képp koo xam ne sa baay dafa ñeme sa ndey sa baay dafa yàpp sa ndey sa ndey dafa ragal sa baay mbooloo moo dugg kenn du la ñeme sunu borom dina la jox baat dina la jox daraja dina la yëkkati dina la tingoom ba seen la te du ci mën dara képp koo xam ne sa baay dafa ragal sa ndey sa baay balaa def tàggu sa ndey sa baay sa ndey su ko neexee toroxal ko su ko neexee dëkk ci àndam ñemewu ko lu mu nas suba ba ci ngoon xanaa muy lu mu ànd waaye su dee lu mu ànd su ko neexee mu nit ci ko donte konte muy gën muy li gën ci moom na la seere ne ëllëg yow fépp foo taxaw doo fa mën a am baat ci këru àdduna d'accord papa man maa wax loolu d'accord maa ngi leen di xaar nag d'accord yow ma duggoon keroog na nga ñëwaat kontaan nañu ñi ngi waxtaanee dot yi nga xam ne ñenn ñi dañ koo gisee mu excessive maanaam dafa ëpp euh, Prospère Dieng ñenn ñi gis ne